barke borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi nga xam ne nii yéena ngi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen uh, tatagal ñoo ngi fi nag ci dëkk bu tedd bi di Touba waaye nekk ci xolub Touba muy daarul xuddoos tey ji nag bis bu am solo bis bu màgg bis bu tedd bis bu am wàccuwaay ci taarixu yoonu murit muy bisub màggaluk uh, ñaar fukki fan ci weeru mu di bis boo xam ne nii ci la ñuy fàttaliku ñibbisi gi nga xam ne ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñibbisi na ko ci dëkkam bu tedd bii di tubaa ginnaaw bi mu defee ñaareem euh, fukki at ak juróom joxoon ndigal nag Cheikh Mouhamadul Moustapha tawam ba mu taxawu ko toppatoo ko ba indi ko fi nga xam ne nii moo di Touba bis bi nag bi biñ ko tàmbalee ak léegi yàgg lool li ëpp ci li ñuy def nag euh, Serigne Touba Cheikhul Khadim joxoon ko sëñ euh, Modou Moustapha dénkoon ko ko ngir ñu taxawu ko loolu tax na nag muy bis boo xam ne nii bis bu làq ay ngëneel la bis bu làq ay njariñ la tey jii nag nekk gaawu ñaar fukki fan ci weeru xaram atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett tombe ak le 28 août 2021 ñu am mbégte nag ànd ak yéen ci bis bu tedd bu màgg boobu nga xam ne ni wax nañ leen ko léegi bis bi ñuy fàttalikoo Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul bi ñibbisee ci dëkkam bu tedd bi ñu koy amale fii ci Daaru Xuddoos di bis boo xam ne ni naka jekk yàgg nañ koo def képp koo xam ne ni yaa fi nekk xalifaab Cheikhul Xaadim rawatina xalifaab Cheikh Modou Moustapha da ngay euh, taxaw bis boobu ni nga xam ne ni noonu la ko Serigne bu bëggee muy jàng alxuraan jàng xasida julli ci yonente bi istixfaar bernde jokk ak mbokk loolu moo tax nag fi nga xam ne nii moo di Daaru Xuddoos foofu lañ koo tàmbalee waaye yeneen bërëb yu fasantikoo ci biir Touba ba biti Touba mbokki taalibe yi ñu ngi ko fay amal ngir nag jëfe ndigal loolu nga xam ne nii Cheikh Modou Moustapha digle woon na ko waaye mu bàyyee ko woon ci Serigne Touba Cheikhul Khadim jamono ñuy wax ak yéen ki nga xam ne ni tey jii mooy xalif général des Mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ginnaaw bi mu gënee feddali ndigal yooyu nga xam ne nii Euh, ñu ngi ko doon joxe depuis Cheikh Modou Moustapha ak léegi jamono yi moom mu ngi fi nga xam ne moo di kër Serigne Touba ci jumaay ji ngir dundal bis boobu ci jàng alxuraan jàng xasida waaye fii ci Daaru Xuddoos itam ki nga xam ne ni moo di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha di sëñ Ahmadul Muxtaar mu ngi ci biir ñu koy ziar ziar yooyu nag njabootuk sëriñ Touba gi nga xam ne ni ñoo nekk ci dëkk bi ñoo fi ñëw waaye yeneen njaboot yi nga xam ne nii wala ñeneen ñi nga xam ne ni dañoo bokk ci diine ji bokk lislaam ji ñu ngi bàyyi ko fu nekk ci réew mi bu bitim réew kilifa aada itam ñëw ngir ànd ak cheikh Mouhamadul euh, Makhtar Mbacke xalifa Daaru Khoudoss bis bu tedd bi waaye xam ngeen ne itam mbag mbàggal gi xam ngeen itam màggal gi yeneen euh, kër yi ni leen ko waxee léegi mboolem kër yi aju ci Cheikh Modou Moustapha moo xam muy seex si moo xam muy daayira yi mbooloo yi ñu ngi koy màggal kem seen kattan ci jàng alxuraan jàng xasida julli ci yonente bi bernde ngir nag tàbbi ci ndigal lool tabbi ci ngëneel yi nga xam ne nii bis bi làq na ko bisbi nag bu ñu delloo ci taarix xam tuuti wax na leen ko léegi bis bu làq ay ngërëm la ndax Cheikh Mouhamadul Moustapha wax na ne képp koo xam ne ni fanaan nga fi nga xam ne moo di Touba rawatina Daaru Xuddoos ci bis bi yaakaar naa ne lépp luy bàkkaar suñ borom mën na la ci setal wecc daana jox sax ndigal yi nga xam ne nii nekkuñu Touba mu ne leen lépp lu waay jàppati ba bis bi jot na nga ko bàyyi ñëw ci bis bi nee na sax képp koo xam ne nii nekk nga bërëb te amoo lu la andi jëlal aw yoon di dox di dox ba bis bi jeex bu ko defee malaayka yi nga xam ne ni ñooy séddale li nga xam ne moo di yiw yi foo nekk dinañ ñëw jox la sa wàll kon la bis boo xam ne ni làq na ay njëriñ làq na ay ngëneel làq na ay tawfeex yoo xam ne nii yaakaar naa ne mbokki taalibe ku nekk kam sa kattan yaa ngi ciy def sa liggéey bu am solo ren ji nag ñu ànd ak waa diwaanul muridin lëkkale mboolem daayira yi nekk ci buntu kër yi daarul xuddoos ni ñu koy defee ñeenti at ak léegi ñenn ci ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu multimédia lëkkalikoo ànd ak ñoom def liggéey bu am solo mbooleem loo xam ne ni reportage la moo xam muy ziar yi moo xam muy bernde yi moo xam yeneen euh, millier yi nga xam ne ni dañ fay màggal màggal gi ñu ànd ak ñoom siiwal ko ba ku nekk ci réew mi wala bitim réew mën a ànd ak ñun ci tawfeex ak xew-xew bu mag bi nga xam ne nii moo am fii ci Touba Darul Khuddoos incha allahu rabbi dinañ dem ci ay bërëb yu fasantikoo ak suñu équipe yi nga xam ne ni jamono yi ñu ngi opérationnel nekk ci terrain bi ànd ak ñun lépp lu am fii ci Darul Khuddoos ñu biral leen ko di ñaan daje ci ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadul Bamba Xaadim Rasul kon ba ci kanam jaa ngeen bàyyi Cheikh Kunta ñu ngi lay jaar comme ni ko suñ Baye waxee léegi rek bis bi képp ku ko wax sa xel dem ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ndigal yi ko Serigne baa def waxoon mu jëfe ko ba tey jii ñu koy wéyee lan nga nu mën a wax tuuti rek ci taarixu bis bu tedd bi lee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yi di ñaanal alxalifatul am li tariqatil muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñ borom yokk ko ak wér bàyyi ko fii ba ca kanam a kanam kanam di ko ñaanal borom penc mu tedd mi di Cheikh euh, Ahmadul Muxtaar jërëjëf mbokk mi ñu ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu bu baax seen taxawaay ak seenu doxin ci liggéey bi euh, cosaanu bis bi nag mooy jëfee ndigalul borom tubaa euh, rek mooy mooy cosaan li ci bis bi ndax ndigal li nga xam ne nii sëriñ bi da ko bindoon jox ko Cheikh Moustapha te sëñ Massamba nekkoon seede sa e, bi nga xamee ne suñ borom ñëw na ak dogalam ba suñ borom def e, loolu ñuy wax e, fekki borom bi ci saayir te nga xam ne nii suñ borom moo ko tudd ne bépp bakkan bu dund danga ci jaar muy kullu nafsin daa'iqatul mawt bi nga xam ne suñ borom dikk na ak dogalam la sëriñ bi bëggoon mooy ñu indi ko ci bàkkam bu tedd bi loolu bokkoon na ci li nga xam ne nii bëggoon na ko te xam na ne nit bu fekkente ne nii ak ruwam nekkut ak moom mënatul defal boppam dara lañ koy defal ginnaawam day xool ñam ca gën a wóolu gën leen a yaakaar na mën nañ ko mu ñaan ñooña taxawul ko ginnaawam loolu taxoon mu sàkku Cheikh Mamadou Moustapha ne ko euh, bis bu fi bàyyi ko nañ ko indi Touba ci pàkk bu tedd bi nañ ko indi Touba ci pàkkam bu tedd bi Cheikh Moustapha nag ndigal loola mu defoon moo xam ne bëggu sëriñ bi la. moo taxoon ba suñ borom ñëwee dogal bi mu fexe ba indi ko Touba denc ko ci barabu tedd bii fii nga xam ni mooy fii mu nekk tey ci penku jumaa ji te ak garabu mbéb nekkoon fi. Baye Dame Ndiaye bëgg Bamba ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk la ci bërëb bu tedd muy béytu ngeen di koy saytu ci ndigalul sëriñ bi ñu yàgg leen fee fekk tey nag ñuy fàttaliku bis bu am solo muy bis bu sëriñ Touba tànnoon ngir dëkkaale si ak boromam waaye bërëb bi ñu nekk xam naa di ngeen ci dëkk. mel na ni sëriñ bi bokk na ci bërëb yi mu mujj eh, nekk bi mu jógee njaareem ba dina ko Cheikh Modou Moustapha jëfe ndigal yóbbu ko ci penku jumaa ji ba tey ñu ko fay ziare bis bi ak bërëb bi tey loonu ci mën a baaxee ci ay kàddu yu gàtt. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ah, noo ngi leen nuyu lu bari lool di sant yàlla sant yonent bi sant sëñ Tuubaa di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te amu wér. ñaanal sëñ Ahmadou Muxtaar moom nu yàgg fi lool suñu borom defal ko wér di ñaanal suñu xalifa Daaru njaay muy sëñ sëñ sëñ Abdou Khadir ndax sëñ Abdou Khadir Ndiaye moom noo bokk na ci daara ji kon nag noo koy ñaanal mooy xalifa sëñ Daaru moom sax ci sëli la waaye mooy xalifa sëñ Daaru noo ngi koy ñaanal euh, mu yàgg fi lool te amu wér suñu borom defal ko tawféex ak ndimbal te defal nu ko li nga xam ne barab barab bi barab la boo xam ne moom noonu ñu tuddee woon euh, sëñ Daaru muy sëñ muy muy wajur muy muy wutu sëñ Daaru moom sëñ Abdou Khadir moomu sëñ Daaru ci boppam <coughs> bi sëñ Touba sancee barab bii bi mu ko bëggee sanc daa woo ba sëñ Daaru bu mu dikk mu takkaloo ko néeg bii bi mu ko takkal ba mu ko takkaloo ba mu ko takk ba noppi mu ne ko daa bëgg nga nga nga nga làkkal ma kër gi làkku ngeer boo xam ne ku wëlu gëleem du xam lu ne ci biir kër gi karna moo ma ko wax moo ma ne moo ma ne bokk na ci ñe doon lakk bi ba ñu noppee sëñ Daaru woo sëñ Touba woo sëñ ba mu nopp ñëw mu ne ko dama bëgg nga dugal ma ci barab bi euh, sancal ma ko mu daal di mu daal di sancal ma ko sëñ Daaru dugg na ci biir barab bi ba def ci weer ak fukki fan ba mu génnee nag sëñ Touba doog cee dugal boppam doog cee sëñ Touba dugal ci boppam bi mu ci dugalee boppam nag nekk ci ba def ci juróom-ñaari at juróom-ñaari at yooyu nag yàlla def bi mu defee liitikaaf bi mu defee ci liitikaaf ci jàkkam jàkkam ji moo ko moom moo ko moo ko moo liggéeyoon moom moo ko moo ko liggéeyoon daan ci julli juróom julli juróom yëpp foofu laan jullee bi ko yonent bi feeñoo ñoo foofu la ko yonent bi feeñoo ci liitikaaf boobu mu doon liitikaaf ànd ak yonent bi mu ànd ak ahlu ak saaba bi mu nee bi bi mu ànd ak ahlu basar saaba yi nag moom yonent bi sëñ bi nag bëgg bëgg a bokk ci àndandoo yooyu yi xam naa dañuy euh, kii rek gàttal ko rek bërëb bi ñu nekk tey wax nga ko léegi fi la sëriñ bi joge woon dem ci tukki bi ba am li mu bëgg lépp waaye bi mu ñëwee itam mel na ni dafa suñ borom ci mu dogalam da ko yóbbu njaareem mu def fa fukki at ak juróom ba suñ boroom tànnee sëriñ bi tànn mu dëkk si fii mel na ni fii lañ ko mujj a wàcce wala fii la mujj teg ay jéegoom door dem penkub jumaa ja kon bërëb bu am wàccuwaay la ci bis bi ak bisub tey bi loo ci mën a wax. ci bis bii xëy ni euh, mooy bis bii xëy ni moom dañoo wax ne. Euh, sëñ Mourou Moussa dafa daan wax ne képp koo xam ne nii yor nga sax yaari mbubb te amoo paas man ngaa jaay mel ni mbubb nga nga nga paase ko nga ñëw te ndax bis la boo xay nii képp ku fi fanaan suñu borom dana li jégal say bakkaar ba mel na nga juddoo woon kon nag lu rëy la jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne nii ni leen ko waxee woon ci njaalbeen gi rek yéen ak ñuy bàyyi xel foo leen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew en direct de Touba Darou Khoudoss ngir fàttaliku bis bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tànnoon dëkkaale si ak boromam fii ci dëkkam bu tedd bi ren ji nag bis bi tombé ak euh, ñaar fukki fan ci weeru xaram at mu jot euh, ren ji di 1443. waaye nag tomboog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août atum 2021 ni ngeen ko seetaane nag ci reportage yu am solo yooyu ci yenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne ni jot nañu ci yëkkati ay kaddu waaye ñenn ñi nga xam ne itam ñu ngi saytu lépp lu jëm ci njàngum alxuraan mi ak xasida yi niñ ko waxee lépp nag mooy ndigal li gën a euh, fës wala ndigal li jëkk ci bis mooy jàng alxuraan jàng xasaayit da ngeen itam bërëb bu tedd ba bu nga xam ne nii euh, mooy bërëbu bayti di bërëb bi nga xam ne ni Serigne Touba bi muy bàyyeekoo fii ci Touba di dem ca tukki ba fi la jóge waaye bi mu ñëwaatee itam Touba ngir dëkkaale borom bi fi la mujj euh, nekk muy bayti loolu nag nekk na loo xam ne nii euh, fës na ci reportage bi ak itam ziar yu am solo yi nga xam ne ni wax na leen ko sëñ Ahmadou Moukhtar xalifa Daarul Xudos ñu ngi ko koy amal waaye ni lañ koy àndee ak yéen nag ak sunu yeneen équipe yi nga xam ne nii wax nañ leen ko ñu ngi ci yeneen. bërëb yi fasante ko fas yéene nag lépp lu am fii ci màggal gi ngeen fas ko ngeen fas ko yéene ànd ak ñun di ñaan daje ci ngërëmal sëriñ bi wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh